conseil sénégalais des chargeurs COSEC moo leen di may seen revue de presse dali jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo barça wala barsàq gi ma ngi melu tulleeg man la ci réew mi naam am na ñu bari ñoo xam ne ñoo ngi ciy faatu yéenekaay gi di réew mi quotidien nee na faatu gi li mu bëri bëri am na ñoo xam ne ba léegi ñoo ngi dem ndax lu tollu ci 24 heures am na lu toll si ñaari téeméeri nit ñoo xam ne teg nañu leen loxo maanaam ñaari téeméeri nit ñoo xam ne dañoo bëggoon a jël gaal gi dem bitim réew ñu daat leen di dogale daat leen di wàllu sa ñooñee am na si xam ne gis am na si sax ay parental yéenekaay gi di Rewmi Quotidien nee na mbir mi ba léegi nii njaw ma ngay wéy di desu xambin yéenekaay gi di Sud Quotidien nee na Barça wala Barsax gi bëri na ñoo xamante ni dañu see faatu am na ñoo xam ne ñoo ngi doon xaar état bu Sénégal amal li nga xam ne mooy ab deuil national la waaye nag li ñu seetlu mooy njaboot gi dañu leen a seetaana fu waaye xam jëm yéenekaay gi di L'As xëy yóbbu ñu diwaanu Kayaar nee na foofe am na ay ndaw yoo xam ne jëloo nañu gaal gi waaye jotuñoo yegg nee nañu bu ñu gisee geneen gaal dañuy demaat amul lenn loo xam ne moo leen di tee ci réew mi bu ñu gisee geneen gaal goo xam ne a kaay gi di enquête nee na lu toll si junni ak juróomi téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar ci ay nit ñoo xam ne teg nañu leen loxo ñu bëggoon a dem ci gaal am nañu lu toll si ñaar fukk ak juróom-ñeent ñoo xam ne ñoo organiser lu jëm ci wàllum barça wala barsàq gi ñooñee tamit defeer nañ leen yéen a kaay gi de la turbine nee na ginnaaw lajj gi nga xamante ni état bu Sénégal lajj na ko ci émigration clandestine bi léegi ana ñan ñooy tee ndaw ñu dem ci géej gi yéen a kaay gi di Vox Populi daat nay wax ne maanaam départ yi sumbe juun la bar ñi puisque Mbour Saint-Louis ci gox yoo xamante ni foofee la ndaw yi di départ yéen a kaay gi de la Soleil bàyyi mbir moomee wax ci ubbi gi tey jii njàng mu digg doomu mi lu toll si ñeenti million ci ay élèves ñoo ngi koy xaarandi ak lu toll si juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari junni ci ay jàngalekat ren jii état bu Sénégal daan nay jël lu toll si ñaari junni yu fekk juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróomi jàngalekat yéen a kaay gi di Sud Quotidien ne tey la ubbi teg école gi nan la ñuy def ak jàngoroy coronavirus ji ndax mesure barrière yi dina di koy respecté yéenekaay gi na ci am na loo xam ne mënuñu ko respecté ndax taabal ban yi doyu la protocole sanitaire bi du yomb ñu daal di koy respecté yéenekaay gi nee na ministère bi ñu dénk wàllum njàng mu digg doomu mi ñoom wax nañ ne lu toll si ñetti téeméeri junni ci ay table ban danañu ko daal di livré yéenekaay gi du l'observateur dikkal ñu ci mbir mu doy waar ak ubbite école gi am na benn élève boo xamante ni ab élève wu terminal la dafa sàcc lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ak ñett ci ay saakoy ngooñ jaay ko ngir mën see jënd ay fourniture yéenekaay gi de la témoin ci biir géej geek ñàkk jën gi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ndax nappkat yi dañu dugg ci biir géej gi waaye du ñu gis wenn jën woo xam ne moom la ñu napp yéenekaay gi daal di wax ne nappkat yi ñaawlu nañ bu baax a baax licence de pêche yi nga xam ne jël nañ ko jox ko bateau étranger yi ak lu soxal wàllum émigration clandestine gi loolee moo tax ñi nga xam ne ñooy mool yi neema nappkat yi mer nañ lool lool ki nga xam ne mooy Aliou Ndoye mi ñu dénk wàllum napp gi yéenekaay gi di Rewmi Quotidien les jeudi de l'économie Amadou Hott ministre bi ñu dénk wàllum économie journal bi nee na jamono ji ma ngi xar tànk tubayam ngir nag relance économique bi daa di bara économie réewum Sénégal nekk fa mu nekkoon wala mu romb ko lu soxal économique boo xam ne dafay jugaat mënuñu see ñàkk ba ñu dugal ab secteur privé boo xam ne bu dynamique lay doon waaye nag dina am ay yeesal yoo xam ne mooy gunge relance économique bi yéen a kaay gii de Les Échos maître Moussa Diop mi jiite woon Dakar dem dikk bàyyi na Macky Sall na Benno Bokk Yaakaar démb la ko xamle yéen a kaay gi daal wax bi di Aminata Mbengue Ndiaye da doon amal ab réunion ak Mamadou Wane mi ñu dénk wàllum vie politique parti socialiste dañu ko tere na ko réunion boobee doo ko fekkee yéen kaay gii de la tribunal daan wax ne Macky Sall jamono jii nag jàpp na ne maanaam moo ci nekk waaye ñi nga xam ne ñoom la recruter ci wàllum politique ñi ko fekki ñenn ñi ay cadavre politique lañu maanaam ñenn ñi ay coquille ñoo xam ne tekkeetuñ dara ci wàllum politique am na si ñoo xamante ni Macky Sall jël na leen waaye amul kenn koo xam ne topp na leen fukk ak juróom-ñeent ñoo xam ne duñu ay doomu réewum Sénégal maanaam ay étranger la ñàkkug ndox gi nga xam ne moo am ci Ndakaaru fukk waay waaye nat daan na koy passé askan wi sonn nañu loola yéene kaay gi di sunu làmb nee na combat Modou Lo Ama Baldé Balla Gaye 2 B52 Papa Sow Siteu journal bi nee na yi ana nan la ñuy def ba am ay date yoo xam ne moom la ñuy tëgg yooyu la làmb moo leen jaaxal yéene kaay gi di L'As ak Vox Populi dikk na ci match bi nga xam ne Sénégal doon na ko football démb ak Guinée Bissau journal bi nee na Sénégal moo gagné ñaari bal ci dara waaye nag match boobee sëful xorom sëful suuk